gis nga soxna si gis nga nañu nañu gis nga Sénégal tamit nekkul maasa yëpp sa jëkkër wala mu nekk benn dëkk boo xam ne dafa nekk benn marché fa nga jaay tamit su ma demee mairie Grand bi ma juddoo di wut extrait de naissance ma ne lañ ma déclaré su ma demee ñu xotti page ba ba xam ne fa lañ ma déclaré mhm. su ma ñëwee dañ ma ne déclaré wu ñu la fi nest ba ba ma koy lijjanti exemple su ma demee mairie Grand Yoff juddoo fa ñu dem di xool sama extrait de naissance. fekkuñu ko fa fekkuñu ko fa. est-ce que man damaa war a dem cyber café créer sama. extrait extrait de naissance su bopp. defaral sa bopp defaral sama bopp dem huissier jox ko ko nekk ko maa ngi dem déposer sama extrait de naissance est-ce que c'est comme ça que ça se passe si c'est comme ça que ça se Mais on n'a plus besoin d'une administration. Chacun a qu'à régler ses problèmes comme il le faut, comme il le sent. Et, et puis, ce qui s'est passé par rapport au DG, e, DAF, Direction de l'automatisation du fichier, mm-hmm. ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, Sénégalais constaté que ko dañ ne Ousmane Soko, le jugement a été ak ñu condamné deux ans dont six mois ferme nous mm-hmm. avons ñu condamné en tant que compte max Lolo andi coow Mais mais vous bu fekkente ni ministre de la justice jot notification de verdict bu condamné Ousmane Sonko mu jël ko jox ko ministère de l'Intérieur, intérieur a ba par décret révision exceptionnelle des listes électorales ñi wara a voté ñi warut a voté ñi war a candidat ñi warut a candidat ñu génnee leen ci liste bi turu Ousmane Sonko bokku ci ndax condamnation bi. mais daaf mi nga ne moom mooy insérer ci liste bi. Mhm. képp ku ciy nekk. Mhm. mais kooku bu fekkente dafa jot notification bu jóge ci kilifa ministre de l' intérieur à travers le ministère de la justice nañu rëjee radier Ousmane Sonko rëjee rek ci liste yi bu ko defee ba noppi daal jël notification jox ko DG nee ko kat kii turam radier nañ ko ci liste yi bokkul ci ñuy vote warul nekk candidat mais est ce que tey DG googu. dana sukkandiku ci mandataire bu ñëw ne jox leen mëlis wala ci procès bo xamante ñi ñii amaguñu verdict définitif diko revendiquer ñi di revendiquer ñom verdict bi jox na leen këyit bii leen war a ñu dem ci wat attends il faut qu'on soit un peu logique et qu'on arrête de manipuler ñom dama jàpp ne yenn discours yi ak yeen manipulation yi. ba légui intention bi ñu am moy talat Sénégal. ëpp na def. ba légui am na ñoom ne ils sont en train de faire le maximum. Mm. pour que Sénégal explosé waat moo war a manipulation mais loolu loolu ñoom duñ ci mucc sax parce que gaal buy dem duñ ci mucc mais ñoom est-ce que jàppuñu ne ñoom jurisprudence bi may wax rek bu Insa Sankar bi ci la ñu jafandiku de accès seen ak seen euh, euh, euh, constat ou huissier bi nga xamante ne dañ leen refuser d'accéder donc à la DGE ak fi nga xamante ne CDC si lañ ci jàppale ak dossiers yi ñu jot ak parce que après validation bi comme comme ni mu ko waxee tout à l'heure validation après après <laughs> après radiation Ousmane Sonko donc bi ñu demee def jógee Ziguinchor dellu si justice décision de justice bi dañu ne nañ ko introduiraat liste électorale non vous ñu une décision de justice c'est un juge mon jugé bi mu jugé muy Sabassy bu Ziguinchor jox avocat Ousmane Sonko yi deug a kat nañu délat Ousmane Sonko ci liste yi mais ce juge n'a pas ordonné parce qu'il n'a pas les prorogatives d'ordonner à l'administration territoriale ne ko insérer juge bi daa atté ba noppi day jël verdict am jox ko. kan moo am kii prérogative boobu. mais la la l'administration territoriale. à travers le ministère de la justice. bi koy jox dossier la confirmation bi nga xam ne moo koy wanaat ne kii kat da intégré waat nañ ko parce que mais décision judiciaire boobu ne moom la juge saa ba si joxe. Mhm. les avocats de l'État dañ ko toppaat cour de cassation. cour mais la la confirmation mais confirmé nañ ko au niveau. de la cour tribunal des grandes instances. gis nga joxaat ko. xaar ma la mais li amoon Ziguinchor moo amaat fii rek. Mhm tribunal bu Ziguinchor dafa joxe verdict mu favorable les plaignants mais li nga xamante ne ñoom ñooy les avocats de l'état à travers l' judiciaire de l'état dem déposer recours né d'accord accord ma ci atté bi té yoon moko may yi bi mu demee cour suprême ñu kase ko yobbu ko tribunal hors classe de Dakar ñu atté wat ko fofu joxat len fa deug joxat len fa deug

les juristes ak les politiques ñu ngi koy werante moo tax ñoom dañuy wax naan décision finale bi mooy bi nga ne moom la cour suprême bi nga xam ne moom mooy dernier recours bi foog nga ne ay juges ñoo fay daje. Mm-hmm. amul dem plaider waat y a rien les juges ñoom ñooy dajewaat foofu joxe seen verdict soit dañ koy kase. wala ñu réintégrer ré wala ñu réintégrer ko. Mm-hmm. léegi nag bu ñu ko nee réintégrer waat. Mm-hmm. beneen débat laay andi waat y a un autre procès buy amaat le procès euh, cour suprême. bu Mame Mbaye le 4 janvier. bo xamné le plaignant ci bopam mom ci bopam accusé bi mom mo déposer cour suprême né mom Ousmane Sonko tàkkoorul mhm. ci att bi nga ne att nañ ko moom Mame Mbaye concernant diffamation ci affaire Prodac. Mhm. donc mën na la y' un flou judiciaire bo xamné Sénégalais yi ñoo dem ba ben instant ils ne comprennent pas Sénégalais yu bari bu juge bi waxee juriste bi bu waxee li tay mhm. benen juriste wax le contraire. bu avocat bi waxee lii tey beneen avocat wax la contraire dafa am benn avocat Ousmane Sonko bu ma njëkk a dégg ci procès Adji Sarr mu ne. bi mu génnee de. Mhm. mu ne décision bi nga xam ne moom lañ condamné Ousmane Sonko amul juge amul avocat amul ku leen mun na wax ku leen wax ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection day wax lu ko neex c'est un avocat Ousmane Sonko qui avait dit ça. ah Cissé mu ngi daw ci réseau sociaux yi. Cissé ah maître Cissé. non avant Baba Cissé am na ku ku laa jàpp. moo toog maa ko buntu tribunal la génn ne décision bi ñu jappé Ousmane Sonko condamnation bi muy avocat Ousmane Sonko keneen ku leen mëna wax ne Ousmane Sonko dina bok ci élection day wax lu ko neex parce que verdict bi mënut ko dugal ci élection. Ah mais ils ont raison quand même de manipuler les sénégalais. parce que sénégalais ci seen jëmmi bop dañu comprendre lii de justice ak jurisprudence bi. non xam nga la dafa am sax ñi ci nekk ñi nga xamantene ne ils ne comprennent pas. a fortiori des sénégalais lambda. gis nga waxee jurisprudence nañ ci dimbale sénégalais yi <laughs> politiciens yi ak ñenn sàcc yi ne ci réew mi té yor xaalis ko ci def sa tuuxi duuna dem wuti jurisprudence ko narat avec ces affaires de jurisprudence donte dafa bok ci li nga xam ne moom procédure judiciaire yi nga né mom mo ci réew mi mais tay il faut que prendre les choses à la légèreté moy mm-hmm. li gëna confirme li gëna concret moy le code électoral bi nga xamné mom boy mooy dem élection mm-hmm. présidentielle le code euh, journaliste yi ban code lañ yor. code de la presse. code de la presse demul élection. Mhm. code juridique. demul demul. Mhm. code électoral mooy dem élection code électoral li mu wax gis nga gars yi dañuy dof dofloo L29. Mhm. leer na L30 leer na L57 leer na L nangam ak nangam leer na gars yi bu ñu bëggee conformer wu à travers ce qui se passe sur le plan politique dañuy jël seen code électoral di ko ubbi di ko liiral Sénégalais yi des fois nga gis kuy liir code électoral bi L29 bu ci liiree ñaari paragraphe yoo xam ne arrangé na ko fa la koy yemale nañuy yeggale paragraphe yi ba ci feeba boo demee ci L30 mais am na lu mu wax naan buñ la xësee jàpp compte max avant muy wax naan buñ la jàppaatee compte max ba daanu na dafa ne si buñ la condamné par compte max vous êtes rajé définitivement des listes mu ngi ci code bi.

ku ci am neuf dossiers yu mot sëkk ah bon uniforme. neuf la wala dix kii la dix pièces la je pense la ñuy laaj diis la. dix waaw dix la waaw d' accord mën naa lii sax dix yi xëy na balaa ñoo pare. Uh-huh. ku ci motal dix yi nga xam ne moom lañ la laaj. moo xool say parrainage daa booy doublon. <laughs> mu mat xool sa clé USB ndax jaar na ci yoon. mu mat waaw ñu validé la. les conditions sont réunies euh, soxna Yatta nga àddu rapidement ci loolu rek ndax 11h jot na. ana ah, waaw euh, pëccxoo ak réeroo <laughs> lañ fi gis euh, ci li nga xamante ne mooy investiture bi ñu. ñu dëgg voilà parti bi ñu tas di Pastef